président Moustapha Diakhaté ñu ngi lay nuyu. ma fàttali ne yow yaa jiite woon groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar tey ñu waxtaanee ci euh, li nga xam ne mooy actualité caricature euh, kii di prophète de l'islam Mohammed euh, sallallahu alayhi ci kàddu yi nga xam ne président français yëkkati na ko ban commentaire ngi ciy def. waaw d'abord xanaa metti lu ko rek ñaawlu ko di yëgal waa Sénégal ne président Macron nee moom France ñoom du ñu bàyyi caricature. Mhm. waaye loolu moom bu ko waxee waxul dëkk mhm. ndax maa ngi parli nit ñi ne journal bi tudd Charlie Hebdo avant mu di ko tudd mi ngi tuddoon Harakiri. Mhm. dafa mas def benn caricature ci général de Gaulle ñu yóbbu ko tribunal condamné ko tere journal bi. Mhm. kon France ñoom bëgguñu ko caricature général de Gaulle ba taxoon ñu condamné journal bi kon damaa jàpp ne France bu sañee bañ ñu caricaturer général de Gaulle. jàpp naa ne war naa nangu jullit yi bañ ñu caricaturer seenu yeneen mhm. kon encore une fois président Macron wax jo wax jooju wax wax du waxu kilifa mhm. waxu caaxaan la li ma jàpp nag mbéjum kanam la borom ma ko war a fajal boppam mhm. les pays musulmans dans le cadre de l'OCI ñoom ñoo war a jël seeni responsabilité xeex ak France ci ba ñu bàyyi caricature xeex bi nag jàpp naa ne ñun mën nañ ko gagné xëy na la conquête bi ñu bi ñu fi indee seen i di conquérir suñu réew di ko dominer sur le mm-hmm. plan colonial mm-hmm. xëy na boobu mënuñu woon waaye tey jii moom c'est une guerre économique te jàpp naa ne li France di gagné ci suñu réew yi moo ëpp li ñuy gagné ci France jàpp naa ne boycott bi nga xam ne président Erdogan mi ngi ciy woo as euh, réewu jullit yi bu ko wuyee mm-hmm. defe naa balaa yàgg tuuti rek France moom dana bàyyi caricature Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam. ndax jàpp nga ne waaw parce que ñuy xarit ndax jàpp nga ne Sénégal mën na wuyu Erdogan euh, si woote googu ndax mën na ah. boycotter produits français yi. da caa da caa war a bokk de ndax dama jàpp ne Sénégal gi nga xam ne quatre-vingt-quinze pour cent ay musulmans lañ koo wax ku ne mu ne moom daa bëgg yonent bi. bu mhm. fekkee dañuy saaga yonent bi jàpp naa ne xeex boobu moom Sénégal moo ci war a jiitu ci euh, état bu Sénégal. ndax bu ko fàtte buñ ko fàtte nga xamee ne France dañoo reyoon ay journalistes yu Charlie Hebdo président Macky Sall dafa demoon ñaawlu ko jàpp ne aussi état bu Sénégal rawati na ci moom daa war a bokk ci xeex ba waaw war euh, na cee xam na war na cee bokk mais ñun euh, dafa bëri ay produit yi nga xam ne dañ koy jëli bitim réew déedéet waaye xam nga ñun France li muy am ci ñun euh, ñun li li ñu France di jaay moo ëpp li ñu koy jaay kon jàpp naa ne ñun bu ñu boycotter produit France France moo ci gën a loolu mhm. rawatina ci du xeex boo xam ne benn réew moo ko war a xeex xeex bi li ma jàpp mooy pays aussi yëpp ñoo war a daje def comme comme session extraordinaire jël résolution ni bépp réewu jullit bu fa produit France duggati mhm. bu fa duggee ba noppi nañ ko fa bàyyi ne yàq bu porox jàpp loolu bu ñu ko defee léegi tey France moom bàyyi nag fu di foyee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que nag yëf yi lay bëgg nekk nag ak yabaate mhm. ah, yow bu ñu bu ñu bu ñu caricature général de Gaulle ñu ñu disu ñu ñu national bi mhm. bëgg démb président euh, Erdogan bi mu ne président Macron daa dafa dafa tàggoo sagom mhm. dafa dof mais France mel nañu ñu ñu ñu tiir woo ambassade bi France bi nekk Turquie wax ji du jeex bu fekkente ne président Turquie amul sañ-sañu wax ne président Macron dafa dof ndax mhm. France ñoom ab journal sañ na fa di caricature yonte mu yor ay bomb wala mu yor ay jaasi di rey nit loolu jàpp naa ne que maanaam xeex boobu moom moom dafa war dakk euh, ma la waxoon sànq rek pesum mbéjum kanam moom mhm. borom ma koy te jàpp naa ne tey jii moom sur le plan économique réew aussi yi a xeex ak France bu ñu xeexee moom dañ ko gagné bu ko defee ndax balaa yàgg daañu bàyyi seen caricature bi ñuy def parce que nag France moom bu ko bu ko réew mi maanaam bu ko boycotté mhm. jaayatuñ ko pétrole jaayatuñ ko gaz li muy jaay jëndatuñ ko. Mhm. yaakaar naa ne léegi tey ay mbiram moom féete boor. tey yaa ngi wax Sénégal wax na cee bokk euh, mais gis nañu Thiel autorité yi ba tey gisaguñ leen. Ah, déggaguñ leen ci waaw ah, jaaxal na ñëpp de Thiel li Macky Sall ji de moom wax yàlla moom wax dëgg yàlla kiimaan la. ah kilifa yi seen Thiel ji moom jaaxal na ma dégg naa nag am na ñuy waaj ñoo ngi réagir par contre goutte mais ñu ngi waaw damaa jàpp nag dañoo waroon a réagir bu ndax tey li ma xam mooy bu fekkoon ne li tubaab yi def li tubaab yi wax yonent bi sallallahu alayhi wa dañ ko waxoon Sëriñ wala Cheikh Siraj Malik wala ma Abdoulaye Niass wala wala Cheikh Ibrahima Niass wala ñu wax ko Cheikh Boukounta Ndiassane wala ñu wax ko Cheikh Omar wala ñu wax ko um, Imaamul Mahdi kon jàpp naa ne jullit Sénégal du ñu du niñ ne tekk duñ ci ne tekk mhm. te man jàpp naa ne képp koo xam ne ku ñu fonk fu ne fii ka tax ju fonk la mooy yonent bi sallallahu alayhi kon jàpp naa ne uh, aar yonent bi moo nu gën a war sax aar mhm. na xëy na loolu xëy na bon la xëy na daañ ko daañ ci daañ ci jóge pour que mm, France xam ne jullit Sénégal rawatina seen kilifa yi wax jooju wax ji neexu leen te jàpp naa ne ñoom bu ñu yëngoo rek. Mhm. sax euh, mbir mi dina gën a dina ëpp solo buñ ko bay ak président Erdogan rek mu di ko di ko xeex damaa jàpp ne ñun waa Sénégal président a Sall war na ci dugal waaye ñi ci war a ko war a jiite dëgg dëgg dëgg nag. Mhm. mooy ñi nga xam ne ñooy kilifa yi diine Sénégal rawatina mhm. wax ci beneen phénomène ñu dégle ci tamit nga ci ñaax euh, ñu criminaliser muy phénomène émigration irrégulière euh, tey ji nan la ñu mën a def ba àgg foofu nga euh, digle. waaw xam nga maanaam xa li ñëpp seetlu mooy fan yi moom xale yi faatu ci géej gi dafa bari. Mhm. Euh, te 2016 bi nga xam ne terrorisme dafa ñëw bori Mali Sénégal dañoo suppar ñoon code pénal bi indi mhm. loi bu bees tudde ko la loi anti terroriste maanaam loi buy xeex terrorisme mhm. ma jàpp nag ginnaaw 1960 ba léegi benn terroriste reyagut benn sénégalais fii ci biir réew mi mhm. te nag diggante 2000 léegi moom maanaam ay ñi dee ci ñi géej gi rey ci émigration clandestine kenn xamul nu mu ma jàpp ne xeex émigration clandestine ci jaxle jaxle jeunes yi ñooñu lañ xeex ñooñu lañ war a xeex mooy ñiy defar euh, looco yi ñiy mm-hmm. defar pirogue yi. Mm-hmm. ñi koy jënd ñi nga xam ne ñooy wuti client. Mm-hmm. Euh, di ak di leen yóbbu ñooñu la ñu war a xeex maanaam fexe ba biir Sénégal kenn du fi mën a defar looco buy dem ngir buy dem biti. Euh, yóbbu ay immigré kenn dootu fi mën a organiser voyage buy dem maanaam ay voyage boo xam ne dañ jël ay ay looco. di ci dem eh, di ci dem bitim réew. Mhm. loolu nag jàpp naa ne lu mën a nekk la muy loi yoo xam dañ koy def muy loi yu métti kuñ ci jàpp ku ne. Mhm. ñu teg la daan yoo xam ne sa xel dootu ko xalaat. benn. Mhm. bi des mooy code diggante boo jàppee ndar ba ba ngay dem les îles Caravanes. muy la la côte sénégalaise muy tefes gi ñu def un dispositif de surveillance. avec des caméras de surveillance. avec des des des polices su ko defee benn nit dootu mën a defar ab looco benn nit dootu mën a jël ay looco di ko teg ci tefes gi pour di ci dugal ay nit. Mhm. je crois que loolu vraiment pour sauver ay bakkanu Sénégal loolu war nañ ko def rawatina ci nag ci constitution bu Sénégal dafa état bi dafa obligatoirement moom moo war a aar bakkanu Sénégalais yi. Mhm. bu ñu wax état bi nag mooy président bi kon moo war a jël dispositif ci wàllu yoon. tere defar bato pour dem yóbbu yóbbu ci ay nit bitim réew. Mhm. tere nit di jël a bato di ci dugal ay ay nit di dem bitim réew. tere nit di di maanaam di dugg ci bato ngir ngir ngir dem bitim réew tekki daan yu méttee métti jàpp naa lu mel noonu bu ñu ko defee parce que li nga xam ne moo ne këtt na joon mooy nu ñu def ba aar bakkanu doomu aadama yi mm-hmm. ñooñu nga xam dèjà dañoo jaaxle ba noppi ñu boole ci nag di leen dugal ci loo xam ne seen bakkan mën na caa des loolu moom ñu dindi ko bon donc man sama proposition ñi nga xam ne ñoom la concerné mooy ñiy dund ci ci jaaxle ñuy dund ci ña ñàkk yaakaar gi nga xam ne euh, dal na xale yi ci jamono yi. kon yow daal da nga dédouané carrément candidat à l'immigration yi. non xam nga ñoom déjà ay victimes lañu. parce que bu ñu amoon bu ñu amoon la ñu la ñu bëgg du seen xel du xalaat génn génn réew mi. dañoo dem dem ba amatuñ yaakaar ci réew mi ñu dëkk. nit ko xam nag da ngaa dem dem ba amuwut yaakaar te ñàkk yaakaar googu nag jàpp naa ne lu ci ëpp. état bi moo leen jàngalut ni mu jàngale mhm. moo leen formé wul mais rawatina ci état bi maanaam état Sénégal mille waroon a liggéey dañ ko liggéey parce que bu wax ne mille neuf cent soixante mhm. ak Corée du Sud gii ñoo tolla woon développement mhm. Sénégal ak Tunisie ñoo tolla woon développement tey jii boo demee ñaar réew yooyu nga xam ne raw nañu fop kon xale yi le fait que ñoom amatuñu yaakaar seen réew du loo xam ne ñoom ñoo ko teg seen bopp maanaam seen réew moo leen seen bi seen seenum réew moo leen préparé wul mhm. ba ñu mën a tedd ci ci biir réew mi tax ñu bëgg a dem kon ñooñu man munu maanaam pour man munuma leen a leen a maanaam xarab ñi nga xam ne bokk na ci aussi ñi am responsabilité pour tax xale yi di bëgg a réew seen i la mhm. kenn ku ne naan way doom ju doom ju euh, euh, maanaam jur dal maanaam jur dal di jur mu dee waaye mooy jur koo xam ne mënul dara su ko defee xale bu mhm. nekkee ci kër gi di waxambaane te amutum xëy daanaka da da nga koy jàpp yow comme ku dee xam nga nit ki bu fekkee boobu euh, am doom ba pare di ko gisee noonu. Mm-hmm. moom ci boppam aussi dem génn mam faatu ci àll bi moo koy gënal mu toog ci kër gi ñu di ko xool parce Sénégal moom lu maanaam mbir moo demee noonu bi ñu des mooy. ci mm-hmm. biir askanu Sénégal. Mm-hmm. dañoo dem a dem ak ci foo xam ne dañoo jàpp ni ku amul ku amul alal rek bokkatoo. bokkatoo c'est-à-dire jabar sax doo ko mën a am ak sëriñ sax doo ko mën a am. kenn du la faale maanaam boo magoon ci kër gi boo xew. ñi nga xam ne ñoo am alal kër gi ñoom la ñuy déglu am réew nag bu àggee foofu réew ma ci moom moom feebar na kon encore une fois bi li mu a def war na ko def li li mu def war na ko def mooy fexe ba nit ñi gën a jàng gën a am métier gën a mën a am lu ñu def loolu état bi war na ko waaye nag état moo war a wutal nit liggéey bi ñu mooy njaboot bi aussi pression bi ñuy teg ci seen doom yi ñu teg ko suuf mm-hmm. maanaam am alal kooku kooku maanaam nit ki li ko war rek mooy mooy sabablu am nag maanaam ci feneen lay jógee askan wi aussi ñu jàpp ne nit koo xam ne yorul rek tekki woo dara loolu dañ ko war a tekki. kon bu ma la déggee ngay wax c'est pas à cent pour cent responsabilité état. non non non rek ah, moom lépp lu am mm. mm-hmm. na ci responsabilité am nañ mm-hmm. ak askan wi ci boppam nag ni mu gisee alal. Mm-hmm. maanaam réew moo xam dañoo dem ba ku amut ñu ne ko kon ku fa amut da ngay jàpp ne yow moom dem faatu ci àll bi sax moo gën. Mhm. gàddaay la def gàddaay yàgg na am ci réew mi dem ci nekk ci dëkk bi tekki woon dama yàgg di jotee ba nga dem sa yoon. Mhm. c'est-à-dire ñii en réalité dañuy gàddaay. mais nag loolu responsabilité effectivement état am na ci mais njaboot euh, famille yi maanaam wajur yi ak askan wi aussi am nañ ci responsabilité pour man xale yi moom ay victimes rek lañu. d'accord président tey ñu gis ne réew Afrique yi ku ci nekk immigration ni nga koy traité c'est individuel ndax jàppoo ne jot na ñu booloo liggéey ci ñu am benn politique immigration bu baax. ah kay loolu moom moo ñu ci mën a génne. waaye bu fekkee kenn ko ne da ngaa da ngaa teg sa rek. di organiser sa sa sa sa immigration du sotti. parce mhm. li ma jàpp mooy li tàmbalee Mauritanie ak pays CEDEAO war nañu ñoom ñu am poli benn même politique d' immigration boo xam ne ñoom ñooy dis discuter ak Union européenne. Mhm. di signé ay contrat bu ko defee ñoom bu ñu soxlaa ay liggéeykat ñëw ñu jox leen ko bu ñu liggéey ba si. Mhm. loolu benn la bi ci des aussi jàpp naa ne war nañu mën a organiser mutualiser maanaam boole suñuy doole. ba man di euh, maanaam euh, euh, saytu ba man di surveiller. maanaam di xool tefes gi li tàmbalee Nouadhibou ba ba ngay dem ci gannaaw Nigéria. Mhm. benn nit dootu fi mën a defar ay pirogue te ñu di ci di ko jël. Mhm. benn nit dootu mën a jël départ ci biir réew yi pour di jaar ci géej gi di dem dem dem di dem Europe. Mhm. kon effectivement jàpp naa ne li war a def mooy maanaam réew yi nga xam ne ñoo ko seq ñoo bokk euh, tund wi dañoo war a toog waxtaan. te naka la ñu war a def pour xeex immigration pour que ñi nga xam ne dañ ciy dund. maanaam ñiy defari batoog di di yóbbu ay nit ñooñu moom loolu boobu liggéey moom ñu dindi mhm. loolu moom jàpp naa ne wax dëgg yàlla buñ ci boolee sunu sunu sunu doole mooy gën a efficace. Mhm. tey jii nga foog ne assemblée nationale lan moo war a doon taxawaayam ci bile processus. ba assemblée nationale moom xam nga man damay proposer ñu criminaliser le fait nit ñi defari bateau ak ak di organiser ay voyage mm-hmm. loolu moom assemblée nationale mën na ko que ay loi loi lay doon loi nag assemblée nationale koy wote mm-hmm. par ci li ñuy wax proposition de loi mm-hmm. mais li ma jàpp mooy lu mel ni lii moom gouvernement bu Sénégal a jiit moo ko war mooy war a jël loi yi te noonu l' assemblée nationale maintenant l' assemblée nationale mën naa def ay commission ay commission parlementaire mën naa def audition woo ay woo ministère laaj leen ak naka la ñu war a def pour pour saafara effectivement assemblée moom loolu mooy liggéeyam. Mm-hmm. di contrôler l'action du gouvernement di évaluer mais malheureusement Sénégal moom bon depuis 1960 assemblée nationale moom rôle bi muy joué ci Sénégal du rôle bu am solo. loo bëgg a wax foofu. non depuis 1960 xam nga 1962 bi ñu bi ñu jàppee président Mamadou Dia boobaag léegi assemblée nationale moom sikki mu président de la république loolu moom mooy gi. loolu euh, la wax leneen day wax lu ko yow nekkoon nga assemblée da nga bëggoon. moo tax ma wax la li ma la wax moo tax ma ñu mën koo wax parce que bu ma ko néewuloon xëy na du ma xam man assemblée nationale vraiment rôle bi a joué ci mi anam ci këyit yi nag am na waaye dëgg yàlla maanaam gouvernement yi fi nekk ca Senghor ba ci Macky Sall. Uh-huh. joxuñu assemblée nationale cër bi ñu ko war a jox ngir mën def liggéey bi mu war a liggéey. d'accord d'accord merci beaucoup président Moustapha Diakhaté. c'est moi qui vous remercie. merci.